jaajëfal alxaaji sëñ Mbàkke si lépp mi nekkoon ci jataay bi almisbaax ñaanal ko tawfiix sutura ak ak poche def dara sëñ Mbàkke maa ngi ubbi waxtaan wu tudd ci maqaasidu shariati fi sunnatil udhiya muy wàllu sunna tabaski ak jubluwaay ya tax sharia sant nu ko tomb mu njëkk bi waxtaane woon naa ci lu dim tabaski bu ñaari waxtu waxtaanoon naa ci ci fuñ ko yoonale bu ñetteel bi waxtoon naa ci lu tax ñuy tabaski indiwoon naa ci sant yàlla indi woon naa ci dundal sunna sunu maam ibrahima indi woon naa ci yaatal njaboot gi teral gan ñi teral dëkkandoo yi sarax faqiir yi indi naa ci tuur deret ak fi yàlla teg tur rek démb ma nekkoon ci ngëneeli tabaski waaye indi ko ci ni alxuraan junj ci suratul xajj aaya 32 ba tolloon nag ci sunnas yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci wàllu ngëneeli tabaski albarra radiallahu anhu moo ne yonent ba sallallahu alayhi dafa wax ne man dabaxa qabla salaati fa innama yatbaxu li nafsi wa man tabax bada salaa faqad tamma nusuku wa asaaba sunnata al muslimin foofu yonent bi doon jàngale waaye jàngalaale ci njariñi tabaski ak baaxaayam daf ne ko rendi lu jiitu ñuy julli tabaskiwul boppam la rendel daa bëgg yàpp ku rendi lu jiitu ñu julli kooka tabaskiwut boppam la rendil daa bëgg yàpp rek waaw dégg ngeen daaw biñ ciy tollu mbokk ma rendi woon bëy lu jiitu ñuy julli ci ñëw nag toog di waxtaan ci xar yu seer yi doom ja dugg ci waañ wa rek jël bopp bëy wa teg ci boppam dugg mbedd ma naan paa bi bëy la tabaskee ak naan bee di di toppandoo bëy yi mu siiw lool ndax daa bañoon mu siiw loolu nag bu la ci bum la ci dugal bul rendi mukk xabla salaati moo tax boroom xam-xam yi di ko natt ci na ilimaan yóbbum xaram ca barab ba bu jullee ba noppi rendi ko xam xabla salaati lu yaatu la mooy bul rendi daal lu jiitu julli gi moo xam imaam rendi na moo xam imaam rendiwut ndax imaam moom du rendi te julliwut waaw ah, imaam du rendi te kon bu kenn rendi jiitu julli gi ndax ku rendi lu jiitu julli gi tabaski woo sa bopp nga rendil yàpp rek nga am mu ne nag ku julli ba noppi door a rendi ku julli ba noppi door a rendi yow sam tabaski mat na sëkk te def nga sunnas muslimoon yi maanaam dog nga yoon wa julli jaar jaar nga ca yoon wu julli jaar jaar nga ca kon boo déggee ñaar yi tàmm nusukuhu ak asaaba sunnatal muslimin njëriñ ëpp ko njëriñ ëpp ko ñu ne la sam tabaski mat na dog nga yoonu jullit ya sam tabaski mat na ñaaral ba ci tegtal yooyu anna dabha lillahi taala wala anna dabha lillahi taala wa taqarruba ilay min alqarabin waaw min asami alibada wa taqarruba ilay min alqara bilqarabin min asami alibadat wax jaa ngi door a àgg wa ajalli taati nee na rendi ngir yàlla ren ngir bëgg koo jege mi ngi bokk ci jaamu yàlla yi gën a rëy mi ngi bokk ci jaamu yàlla yi gën a màgg seetlu woon fi ne jinn yi bëgg nañ ko leen rendil yàlla bëgg na ku ko rendil iblis bëgg na ku ko rendil bu tabaski jotee yàlla ne rendil leen ma muñ leen ba déwén seytaane naan li nga gént nangam danga war a rendi xar mu xar mu góor walla rendil béy wu judd walla wala rendil nag woo xam ne danga ko def trois cent treize sam wala wala walla deret yooye ñuy tuur yàlla nee na moom defuñu ko ngir moom te lu waaye def te boole ko ca yàlla seppi ca loxoom yàlla seppi ca loxoom lu waay ji def ba dugal ca yàlla maanaam lu waay di defal yàlla dugal ca keneen yàlla bàyyi loolu par exemple tey dañ ma baal ci misaal mi ku yàkkaloon yàlla bi yàkk daal ni diw kaay sukk buy sukk yàlla y jóg du bokk mukk moom borom bi tabaaraka taala bëggut a bokk suñu xol yi bëggut a bokk suñu jëf yi wa man kaana yarjuu liqaa rabbihi falyamal amalan saaliha falyamal amalan saaliha wala yushrik bi ibadati rabbi ahada kon bi ngay ren di xar mi ah na nga yëg ne yaa ngi def ibaada gu mag ngi def ibaada gu mag waaw ma tax borom bi tabaaraka taala eh, daal di koy lënkale ci téeréem bi ci ay barab yu baree bare bare nga dégg wa man yuazim shaair allah fa innaha min taqwal qulub waaw lu am solo la te mooy tuur deret te yàlla tax mbokk yi yàlla na jàmm yàlla nekk seen ak seen njaboot waaw al udduxiya mu ñëw ci xukkumul udduxiya ban àtte la am tabaski ban àtte la am ndax maxaasidu wala wala bokk euh, aqsaamul xukm shar'i juróom lañu sunna war farata luñ sib lu xaraam lu dagan lépp looy def rek xamal ci yooyu ban la ci jël al uduxiya boroom xam-xam ya nee nañu sunna la mu akkada sunna su dëgër la sunna su dëgër la moom la walla dox sunna suñu fedd li fedd li nogay xam na ko léeg-léeg muy laax ndox ma ëpp waaw mu jëlaat ca eh, araw la yokk ko ca laax ba ndax mu dëgër xam nga imaam Abdoulaye Ndaw fi ne bég na <laughs> bi may tudd laax suba teel gi ndax kenn mënu ko tàggale laaxub suba na ma yàlla baal waaw <laughs> waaye Imaam Abdoulaye Ndaw bég na bi may bi may bi may wax laax bi laax bi xaw a lóor nogay tibbaat ci araw li def ci tibbaat def ci bu ñetti yoon laax bi gën fee dëgër ndeysaan waaw moo tax eh, yaa astu ndeysaan koñ ba dañ daan ràng ndeysaan fonde bi yaa astu bi yaa astu yi jaay fonde ndeysaan waaw yal ko yàlla yërëm <clears throat> tabaski sunna mu akkada la dooro tabaski du farata dooro tabaski du farata noteel loolu sunna la mu akkada am na ñuy wax ni sunna waajiba la waaye nag àggul ci farata wa haza ma wax nii mazhabul jumhur wa haza mazhabul jumhur waaw sunu doom jële nekk ca euh, cene ba euh, Muhammad Abu Taha yal na ko yàlla yoo kër def na ci daaw baxs bu am solo ba def ko ci euh, groupe bi whatsapp yi yal na ko yàlla yokk wér sunna mu akkada la mooy mazhabul jumhur almalikiya fil mashhur boo jógee ñu ne almalikiya daal ne fil mashhur mooy am nañ ca ñaari wax waaye wax ji gën a siiw mooy sunna mu akkada waaw loolu boo ne bu bu ñu ne almashhur loolu lay loolu lay tekki waaw mu ngoog alawi ibnu abdul euh, qadir ashaqaaf bind na ca lu mel noonu waaw bind na ca lu mel noonu asaqaaf ci borom xam-xam yi la bokk euh, nee na shaafiiya ñoom tam loolu la ñuy wax alxanaabala ñoom tam loolu la ñuy wax azahiriya loolu la ñuy wax euh, abu yusuf ñaari wax la ca wax jenn wax jaa ngi nii ci ci lii la aktharu ahlil ilmi loolu la ñuy wax ñu ne tabaski sunna mu akkada la waaw tabaski sunna mu akkada la sunu sunu mbokk ma ndeysaan ahmad lum sàmb yàlla na ko yàlla yërëm cey àdduna àllaaxira jot nañu bare den céet céet ku baax nga noonu ndeysaan te bëri xam-xam te bëgg xam-xam ahmad lum sàmb min xiriji soudan waaye defoon na ci daaw baax bu am solo ba ñu dajee ca eh, al abbasiya la ma ko doon wan ba ñëw sunna si yonent bi ummu salamata nee na ummu salamata nee na yal na yàlla gërëm ko nee na yonent ba nee na isaa daxalati al ashru wa araada ahadukum an yaddaxiya falaa yamassa min shaarihi wa basharihi shay'a umu salamata nee na yonente ba nee na bu weeru tabaski teroo ku nara tabaski ci yéen bu mu watu bu mu dagg ay weem bu weer wi teroo weeru tabaski ki nga xam ne nar naa tabaski bu mu dagg we bu mu watu hmm waaw ñu ne waaw saxaaf lu tax nga indi lii mu ne wajhu dalaala la wajhu dalaala annahu allaqa al udxiya bil iraada wal waajib laa yuallaqu bil iraada waaw mu ne boo déggee mu ne wa wa araada waaw mu ne boo déggee ñu def ci hadis bi wa araada tem nara tabaski mu ne baat boobu baat boobu dañoo fab udduxiya teg ko ca baat ba tem nara tabaski mu ne su fekkoon farata la kenn du wax tem nara tabaski waaw cëy loolu la boroom xam-xam yi di yëge ci nas yi texte yeeg yooyu waaw nee na annahu àllaqa al bil iraada wal waajibu laa yuàllaqu bil iraada docteur Ablaye Lam ñoom ñoo koy jàngale loolu yal na yàlla yokk ko wér mu ngoog kon lu am solo la ci ci wàllu woowu borom bi tabaaraka wa ba muy aaye jigéen euh, walla ba muy wutal jigéen nu muy solo naan góor sajjal saw xef bu fekkoon lum ñu xool nekku fa du sa jëloo xef wajhu dilaala ñaareel ba suñu yaay Aïcha suñu yaay Aïcha radiyallahu te ci littérature arabe ca ñi ca rawoon la bokk ca taarixul arab ñi ca rawoon la bokk ci fiq ñi ca rawoon la bokk ci nettali hadiis ñi ca rawoon la bokk moo ne alayhi salaam anna rasulallahi amara bi kabshin aqrana yatau fi sawaad wa yabruku fi sawaad wa yansuru fi sawaad fu utiya bi xil yu daxiya bi ngoog nee na yonente ba sallallahu alayhi wa sallam sëriñam ba dafa digle woon ñu indil ko am kóoy kabsh am kóoy kabsh nee na kuy ma daa am ay bëjjën kuy ma daa am ay bëjjën nee na ma ta day dox ci lu ñuul cest à tànk ya daa ñuul muy góor ci lu ñuul mooy biir ba daa am ñuul ñuul muy xool ci lu ñuul mooy bëj daa am ñuul ñuul nee na ñu indil ko ngir mu tabaske ko mu daal ne suñu sa jee mu ne ko labbayk mu ne ko indil ma paaka bi mu indi paaka bi mu daas ko ca xeer wa ba mu ko daasee ca xeer wa daal di koy jël daal di tëral kuy ma daal di koy rendi daal ne bismillah allahuma taqabbal min muhammadin wa ali muhammadin wa min ummati muhammadin thumma daxa bi ne na bi mu tëralee xar mi war koo rendi daf ne bismillah yàlla yàlla na nga nangul muhammad sallallahu alayhi ñoñ muhammad ak xeetu muhammad tabaski moomu ñun ñëpp la yonent bi tabaski waaleel tabaski moomu ñun ñëpp la yonent bi tabaski waaleel allahu akbar alu muhammad daal di dugg ummatu muhammad daal di dugg mu daal di koy rendi mu ne Euh, saqaaf mooy waxaat mu ne ba dilaala boobu mooy anna tadxiyatahu sallallahu alayhi wa sallam an ummatihi wa an ahlihi tujziu an kulli man lam yudaxi sawaaun kaana mutamakkinan aw min al udihiya aw xayru mutamakkin nee na bi yunt bi ren dee xar mi nii moom de tabaski na xeetam wi tabaski nañ waa këram gi tabaski nañ képp ko tabaskiwul rek tabaski ca loola mu ne nag moo xam man man man nga man nga ko moo xam mënoo ko mutamakkin walla xayru mutamakkin man nga ko wala mënoo ko yontu bi tabaskalaal di la mu ne loolu nag su fekkee ne jàng nañ ko dañ ciy jàng ne tabaski du farata ndax bu doon farata ni julli yonent bi julliwul benn yoon julliwaale wóorul benn yoon wooraale nu ajul benn yoon ajaale mu tabaski tabaski waale boroom xam-xam bi nee na ko loolu li muy tekki mooy li muy tekki mooy sunna mu akkada jam doon wax moom lay layal ba léegi te leer na nañ mbokk yi yàlla na jàmm yàlla na ci ak seen njaboot tabaski gaa ngi ñëw yàlla ñu fekk buy dem yàlla ñu fi bàyyi ba tey ci tegtal yooyu bi mu jógee ci alquran jaar ci hadis tey mi ngi dem ci aathar mooy wax joo xam ne ab sahaabaa ko wax wala ay sahaaba ñu tudde ko hadis def ko ci hadis yi usayfat ibnu usayd moo ko wax nee na laqad raaytu ababakar wa omar radiallahu anhuma wa maa yudaxiyaani an ahlihima xashyata an yustanna bihima fa lamma jitu baladakum haada xamalani xamalani ahli ala aljafaai baadama alimtu sunna usay fa nee na usayd gisoon na abubakar ak omar abubakar ak omar nee na radiallahu anhuma daaw ñu tabaskil seeni njaboot ah ndax bañ nit ñi jàppe ko sunna nga xam ne ku nekk day jëndum xar jëndal aawam jëndal ñaareelam jëndal ñetteelam jëndal ñeenteelam jëndalub taawam mu ne loolu lañ ci doon bañ mu ne moo tax bi ma ñibbisee bi ma ñibbisee loola jural ma loola jural ma ma yem ca loola ma jànge woon ca ñoom ndax loola mooy sunna loolu laa jàng beneen bi ci athar ikrima ikrima nee na ibnu abbas kaana yubxadu ni yowmal al adha bi dirhamayni astari lahu laxma nee na tabaski dafa jot ibnu abbas jël deux mille francs yónni ko saamu bu yàpp ikrima neena na kaan ibnu abbas yabaasu ni yowma al adha bi dirhamayni astari lahu lahma ibnu abbas amul tabaski am na deux mille francs ci këram mu yëkkati ko jox ko ikrima ne ko demal nga jëndal ma saamu bu yàpp ci pénc ma mu ne ko koo dajal nag bul nëbb yàpp wi bul nëbb sama ñàkk tabaski gi danga naan ko haadihi udhiyatu ibnu abbas ibni abbas lii mooy tabaski ibnu abbas mooy saamub yàpp bii <laughs> cetttët waaw waaw xam nga nun léeg-léeg nu buñ ko doon def nii dañ koy làq buñ tabaskiwut am problème ci kër gi wala ci koñ bi wala sa jabar xas la waaw wala mu naan la mbotti mii buy dugg may génn kër gi waaw wala rey mu dee reyul mu dee gii waaw sàlla boo ci seetaan ne saa neex tabarkalla da ngay ree ba sonn waaw rey mu dee reyul mu dee ah kay buñ ko reyul du dee waaw ala kulli xaal ibnu abbas ikrima nee na kaana yabaathuhu yowm al adha bi dirhamayni waaw maa ko tuddee deux mille francs nag waaw astari lahu laxma jëndal ko ca yàpp mu ne ko wa yaqulu man laqita faqul haatihi udhiyatu ibnu abbas lii mooy tabaskim ibnu abbas jëndul xar yàpp la jënd ñetteel ba abu masudul ansaari nee na inni la adau l adha wa inni la muusir maxaafata an yara jiraani annahu xatmun aley abu masudul ansaari ca lansaare la bokk nee na am at daana jot mu bañ a tabaski nee na at mi day jot moom abu masudul ansari mu ne duma tabaski mu ne ma mu ne nag te kat man naa ko maa ngi njëb gi mi ngi ma denc ñu ne ko lu tax doo tabaski nag kon mu ne maxaafata an yara jiraani mu xatmun aliya damay bañ sama dëkkandoo yi defe ne daa mënta ñàkk farata la mbokk looloo ca baxsu ba nga xam ne ci la saxaaf def muy baxs bu am solo tabaarakallaahu ci jëm ci wàllu tabaski ñetteel bi ci athar annaha sabixatun lam yajib tafriqu laxmiha fa lam takun waajiba kal aqiqa nee tabaski waxuñu nañ saam yàpp wi moo tax nekkul waajiba ci aqiqa ndax ci ci ci ci ngénte ndax ngénte nañuy def yàpp wa woo ci nag tabaski ni ñuy def yàpp wi ma nga ca kanam insha allah suñu loo waxtaanu àjjuma teg ci wu samedi teg ci wu dimanche insha allah jombul daanu jéem a ñëw mattali al udhiya ak yi nga xam ne moo ci tegu insha allahu tabaraka wa ci wàllu nisar yeneen tomb yi jërë ngeen jëf ci ànd bi ngi Sud FM seen rajo ñoo ngi jégalu soxna yi di jégalu sëriñ si di ñaan jàmm ci réew mi ak réew yi ko wër sunu mbokk yi xëy ci xibaar yi ak ni taxaw yor seen i kayit bëgg leen a firiñ fàncal xibaar yi ci tubaab firiñ fàncaloon ko colof ñaanal yàlla ñoom ak yéen ak suñu technicien bi ak suñu àndandoo bii di C3S la ci bitim réew yàlla na ñëw li ci biir réew mi yàlla na jar yàlla yàlla defar seeni mbir